والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki jullit yi ñoo sant yàlla sunu boroom ci julli ci sangu bindeef yépp di ilimaani mboolem ku yàlla musa yónni muy say muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa di leen ndokkeel di leen ziyaara ci bis bi di ajjuma di fanweeri fan ci ndeyu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent ci gàddaay gi di fàttali sunu bopp di leen fàttali tomb yi nga xam ne sunuy bokk waxtaane woon nañ ko ci ajuma ji ak yi te ji weesu ñu gënoon waxtaan ci mbirum al isra wal mi'raj tey nag dañuy mottali rek tuuti ci al isra wal mi'raj ci waxtaane sérité bi nga xam ne bi ku tedd ka yéegee ca kaw wuy ji woote boroomam ba bi muy delsi moom la àndaale muy julli ñu tënk ca ay tomb xam ngeen ne rañaan ma ak yégg yàlla wax na ko ci alquran ñëw na ci sunna te saxaaba yi ñu ko fekke ñoo ko seere lu ko waraloon nag yàlla rek moo ko xam waaye nag mën nañ cee foraatu ne bokk na ci ya ko waral sunu borom da doon woyafal metit yi nga xam ne nekkoon na ci ab xolam moom sallallahu alayhi wa ndax booba ay bokkam ak nooni lislaam ñi ngi koy teg fitna ak i coono moog ñi mu àndal te at mooma lañuy ñuy wooye aamul xuzni ndax ca la ñàkk bàyyi taxam abu taalib ca la ñàkk soxna su mag sa muy soxna xadijatu sunu borom nag bëgg koo dëfal ba xoolam mën a woyof xoolam mën a féex bokk na ci itam li tax sunu borom defal ko al isra wal miraaj mooy xamal ko ne ko am na wàccuwaay bu rëy fa sunu borom ndax loolu ci moom lañ ko njëkk a dégge ci moom lañ ko mujj dégge bokk na ci li waral rañaan ma ak yégg sunu borom wan ko nag ay kawteef yoo xam ne kenn mësu koo gis ku dul moom yàlla sax mi ngi wax naan li nuriyahu li nuriyahu min ayatina waxaat ne laqad raa min ayati rabbihi kubra kon lam fa gis moo ko moom rekk moo ko mos a gis lam ca wax moom rek moo ko mos a wax bokk na ci li waral rañaan ma ak yëgg mooy nattu way gëm yi ak way weddi ndax am na ñoo xam ne loolu dafa ub seen bopp ba dañ caa jóge weddi ba fàww waaye am na ñoo xam ne loola da leen a dolli pas-pas ak ngëm ku mel ni Seyduna Abu Bakar ca la amee dàkkental wu siiw wu ñuy wooy as-siddiq ndax bañ ko koy nettali dañoo defoon ne buñ ko ko nettali rek mu weddi waaye mu ne lii ngeen wax de bu fekkee moo ko wax euh, dëgg rek lay wax bokk na ca kiimtaan ya nga xam ne suñu borom wan na ko ko mooy xar gañu ñu xar dënnam génne xolam fóote ko ndoxum zam-zam loola kenn mësu koo am ku dul moom war alburaaxit kenn musu koo am ku dul moom jiite ñi yàlla yónni ñëpp tam julli kenn musu koo def ku dul moom la anta imaamu rusli euh, jooju sëriñ bi wax moom rek moo moo ko mos a am ñoom ñëpp mu jiite leen julli bokk na ci yi nga xam ne tam ay kaawteef la mooy yéeg ga mu yéeg ca kaw gis bokkam ya nga xam ne yàlla moo leen yónni ni mu ko yónnee xad baata yaxriqu tibaaq fi leyli qaasida wifaaq wal anbiyaau bi ittifaaq laaqawhu bi takarrumi waxtaramu wa qaddamu wa karramu wa staslamu tawaaduan wa azamu li qadrihi almuxtarami kon ñi nga xam ne yàlla da leen a yónni mu dajeek ñoom ci guddi googee ñu xam dayoom ak màggaayam ak xàqam ñu jox ko xàqam waaye ñoom fa ñu mën a yem rek fa la ñu yem moom nag mu jàll fa gaaba anhum wartaqa fawqa alburaaqi li liqaa xabibihi waxtaraqa xujba alilahi almunimi summa li daarihin sana wa qad xawa kulla muna moo tax ba mu jàllee yéeg ba àgg foo xam ne moom fa mos a àgg bi mu delsee aajom faju na la mu bëggoon lépp am na ko moom lay waxaat nan akrim bi rabbi asra bi xibbi laylan li qurbi ma al baraa'i yasri min baadi tuhri mooy xolam bañu ñu mu diima bishri fil ambiyaa'i mu ànd ak nag jibril waaw ci war ca kaw albur alburaq mu ne suural amini muy moom ku tedd ki maal amini muy jibril fawqal amini muy alburaq lil asfiyaa yi mu fekki nag ñu yàlla yónni woon wa saada fihim ndax moo leen jiite julli ubaana anhum wa anhum mu ne mes nag xamatuñ sax fu mu nekk badartiqa ignaa ba mu yéegee xad aaba layla ci guddi gi mu demee ci la delsi xad sabba naylaa xad faaqa saylaa kon lim àndaali ci ay xéewal kenn xamul lu mu toll min zil baqaay xad jaa bi mayri di ahlil xayri muy julli gi nga xam ne moom lañu ñu bëgg a waxtaane kon rañaan mi e, muy al isra ak nag yëgg muy al miraaj bokk na ci kiimtaani sunu borom yi nga xam ne musu koo defal kenn ku dul sayyiduna muhammad sallallahu alihi wa sallam la anta imaamu rusli qad jaa annahum falaa fi l israai wal kullu qad salla mooy la mu jëflante ak mboolem ko yàlla musa yónni jiite leen julli ñu xam ne moom mooy seen kilifa julli nag ginnaaw soo waxee ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bokk nga ci lislaam bokk nga ci biir léegi nag jëfe ndigal yi moo ci des lii ay wax la ñaari baari baati seere yi ay wax la al is al al imaanu maa waqara fi l qalbi wa saddaqa wal amal da koy fas ci sab xol Euh, wax ko ci saw làmmiñ say cër nag di ko jëf kon nag ñaari baate seere yi moo jiitu lépp su jàllee nag ana lu ci tegee ci ponk lislaam yi mooy julli moo ca gën a màgg Muaad ibnu Jabal ba kooku tedd ki di yónni Yaman da ko wax ne ko yaa ngi dem ci nit ñoo xam ne ci ahlul kitaab lañ bokk kon am nañu téere te jàng nañu soo demee nanga leen woo waaye la nga leen di njëkk woo mooy ñu wéetal yàlla mooy ñu wax laa ilaha illallah muhammadur rasulullah su ñu ko xamee su ñu xamee maanaam laa ilaha illallah muhammadur rasulullah nag na nga na nga leen wax ne seen boroom farataal na ci yéen juróomi julli ci bëccëg ak guddi innaka taqdimu ala qawmin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلهم kon gis nga ne soo waxee ñaari baati seere yi bokk nga ci lislaam waaye nag la la cay gën a boole nag mooy ngay jëfee ndigal yi ndigal yi nag la ca jiitu mooy julli bokk na ci lii tax ñu xam ne julli moo ëpp solo ci ponki lislaam yi mooy sunu borom dañu ko sant ci mbir mu mën a doon kenn am du amu lay soo tukkee dangay julli boo nekkee fi nga dëkk dangay ngay julli soo amee gu wér dangay julli ca nañu ko santaane soo tawatee dangay ngay julli ca nanga ko mane soo nekkee ci jàmm ak tal dangay julli soo nekkul tam ci tal nekk réew muy xeex guerre di guerre ba tey dangay ngay julli kon daal du wàcc jaam bi senn saa te santaane yàlla yi nga xam ne mooy ya ca des nag ci ponk lislaam dañu ko xool ndax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah soo ko waxee benn yoon ci sa dund tàbbi nga ci lislaam wax gi nga koy wax nag dalay dolli ak yëkkatiku day leeral sab xol dalay dolli tuyaabo waaye soo ko waxee benn yoon doy na bu dee woor weeru koor benn yoon nga koy def ci at mi bu dee natt azaka benn yoon nga koy def ci at mi bu dee aji màkka sa dund benn yoon benn la war ci sa dund soo delloo dala soob da ngaa coobarewu waaye benn yoon la la war ci sa dund nañu xool nag julli julli moom bañ koy door a wàcc sax juróom fukki yoon la waroon juróom fukki yoon ci bis bi waaye sayyiduna Musa alayhi salaatu wasalaam laaye biir sunu sang ba ku tedd ka ne ko sa xeet yu duñu ko àttan juróom fukki julli sa xeet yu duñu ko àttan da ngay dellu ci sa borom sàkku ci moom mu woyofal ko mu dellu mu woyofal ko ci juróom mu dellu si mu ne ko ba tey doyul de mu dellu mu woyofalaat juróom mu dellu si mu ne ko doyul de mu koy def di ko des di ko def ba mu des juróomi julli mu ne ko dellul du ñu ko àttande mu ne ko rus na maa dellu mooy li wolof di wax naan bët bu rusul toj rus na maa dellu na ndax juróom fukk ñu koy wàññi ba mu des juróom rus na maa dellu te bu ñu seetee sunu bopp juróom yi sax léeg-léeg day xaw a të ndaw ko ndaay day xaw a të kon nag su doon juróom fukk mënta wax dangay seet loo xam ne su doon aj màkk benn yoon ci sag dund bu dee woor ramadan benn yoon ci at mi bu dee natt asaka benn yoon ci at mi waaye bu dee julli nag juróomi yoon ci bis bi loolu day wane ne kon julli lu rëy fa sunu borom la te itam mboolem ponki lislaam yi moo ci gën a màgg moo tax alquran wax ne xaafidu ala alsalawati walsalaati alwusta wa quumu lillahi qaanitin fa in xiftum fa rijalan aw rukbaana fa ida amintum fadkuru allaha kama allamakum ma lam takunu taalamuun سماحة الخليفة العام يرحبون بمقدمي السفير المغربي السيد حسن ناصري ويرحب ويرحبون أيضا بالوفد المرافق السيد محفوظ عبد الرحمن السيد عزيز أبو بكر والسيد ناصر الدين بن زينة والخليفة يتمنى لكم إقامة طيبة في طوبى كما يتمنى لكم السعادة في هذه المهمة يتمنى لكم الإقامة الطيبة المباركة في هذا البلاد في هذه البلاد وأن ويسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير والازدهار للبلدين الشقيقين فأهلا وسهلا بكم في طوبى المحروسة المباركة kon julli gis ngeen ne boo nekkee ci jàmm ak soo ci nekkul soo wéree ak soo wérul soo tukki ak soo tukkiwul dang koy def na mu ware wala nga def ko na mu mane waaye na waay mane waaye du wàcc xoola xadis bi nga xam ne waxoon na ko kenn ci saxaaba ya ne ko salli qaiman fa in lam tastati fa qaaidan fa in lam tastati fa ala jamb da ku tawat mu ne ko sooy julli na nga taxaw soo ko mënul na nga toog soo ko mënul na nga tëdd kon du wàcc kenn bi muy wujj sunu borom sax dénkaane yi mu mujj dénkaane julli da caa bokk dane na ngeen ma fonkal julli ak njabootu démb gii leen yàlla booleel as salaata wa ma malakat aymanukum yàlla ñi ma mos a yónni ñëpp ñuy wommate di yóbbu ci yàlla ci ndigalul yàlla euh, di def lu baax lu baax la ñu doon def julli da caa bokk wa jaalnaahum a'immatan yahduuna bi amrina wa awxaynaa ilayhim fiala alxayrat wa iqaama alsalaati wa itaa alzaka wa kaanu lana aabidin wax na moom ku tedd ki ne diina ji su amoon bopp mooy ñaari baate seere yi rasul amri al islaam diine ji su amoon bopp mooy ñaari ba baati seere yi daal ne diine ji bu doon mbaar kenoom mooy julli rasul amri al islaam wa amuduhu assalaa te xam ngeen ne julli képp ku ko jox xàqam fonk ko moo dox sa diggante akub safaan inna salaata tanha an ilfahshaai wal munkar julli ku ko fonk jox ko xàqam yàlla fóot la ci say bàkkaar ndax wax na moom ko tedd ka ne ku amoon ak dex ci sa buntu kër saa boo xëyee sangu ci juróomi yoon ndax danga nga dese ab tër ñu ne ko déedéet mu ne julli juróom noonu la mel sunu boroom da cay fóote nit ki ci ay bàkkaar euh, bari bari julli day tax nit ki dëkkaale ak ngën ji mi def ci àjjana dafa am kenn ci saxaaba yi koo xam ne nee na maa ko daan duyel sarla gi muy jàppe di ko toppatool ay waajtaayam bis mu ne ma wax ma loo bëgg ma ne ko asaluka murafaqataka fil janni fil janna dama bëgg bis booy dem àjjana ma ànd ak yow dëkk àjjana mu ne ko te loolu rek nga bëgg mu ne ko loolu rek nga bëgg loolu rek laa bëgg mu ne ko fa ainni ala nafsika bi kasrati sujud nang ma dimbalee ci sa bopp nang ma dimbalee bari looy julli soo bëggee dëkk ak man ca àjjana nang ma dimbalee bari looy julli xam ngeen ne ku baax kii borom pàkk bi ba muy dëkkaale ji ak sunu boroom sëriñ Bàkke bu so nee na ñetti mbir a ngi ni yoo xam ne da leen a nimse woon da doon bëgg-bëggam sottiwul ci kanamam ba ci jëkk mooy dem màkk aji màkk waaye sunu boroom euh, la mu yaakaaroon la mu bëggoon am na ko ndax mbooloo ñoo ko demal màkk bu doon doy ñu ne doy na waaye lu baax du doy kon dem màkk bëgg-bëggam la woon ba ci tege moo di jumaa ji ñu nekk da ko naaloon mu doon bëgg-bëggam ginnaawam sottal nañu ko ba defal ko ay jumaa yoo xam ne bu doon doy doy na waaye lu baax moo dul doy ba ci tege mooy daara joo xam ne nag dañuy laxas di fa sàkku ji xam-xam loola it li ñu def ci ay daara ginnaawam bu doon doy doy na waaye lu baax du doy waaye xam ngeen ne nag sémbal nañ ko joo xam ne nag mooy ndayi daara yépp mooy magi daare yépp joo xam ne bis bu sottee waxuma na biirum réew waaye bitim réew dañuy laxas di fi ñëw di fi sàkku si xam-xam xam-xam yuy defar adduna di defaraal defaraale àllaaxira xam-xam yooyee nag xam ngeen ne euh, bis bu naal bi yeggee dana mën a antu kon nag ki ko euh, tàmbali woon muy Cheikh Abdoul Ahad ak kii ko yàlla teg ci loxoom mu bëgg koo sottal ñépp ci war a gën a laxasaayu ànd koog moom ñëpp ca war a laxasaayu xam ne bëgg-bëggub sëriñ bi woon lu mu nim la woon kon nag kenn ku ne war naa fexe ba buy sotti mu bokk ca ña koy sottal waaye li waral eh, wax ji mooy bokkoon na ci lam doon sémbu mooy jumaa ji jumaa ji nag sotti na bañ defal koy jumaa bu doon doy doy na loolu doy wane nu mu fonk julli biskeen li mu daj ci julli julli ci birob tubaab dañuy bañ ko fa julli julli ci kawam ndox te loolu yombul di gor ay bant di samp ngir def ko jàkk ngir julli te booba tumuranke na booba wéet na loolu lépp day wane ne ku bëgg julli la ndax xam na ne ñaari baati seere yi bu jàllee moo gën a rëy ci ponk lislaam te moom lu yàlla santaane du ca am sago kon nun ñi nga xam ne ñooy ay dongoom lépp lu mu amul amutoon sago waruñ caa am sago war nañ caa waslu àq di ci def lu ñu man bay def sax lu ñu mënul rawatina di ko defee nag ca mbooloo fa la gën a baaxe kon sémbu yi nga xam ne sunu kilifa gi sémbu na ko ñu ngi ñaan sunu borom mu dolli ko kàttan ak wér ba mu sottal ko te nu ànd ko ak moom di gën a nag dalal gan ñi nga xam ne ñooy ay ganam yu bàyyi ko bitim réew ñëw fi ñu ngi ci biir jumaa ji loolu la ñuy tëje ahlan wa sahlan bi saadati safir al maghribi alladi wasala maa hada al wafd al muhtaram wa natamanna lahu iqamatan tayibatan والشيخ يدعو له بالتوفيق في هذه المهمة الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته